social laa nekkoon mais imagine commissariat boobu rek mun am na à peu près quatre-vingts cadres yoo xam ne ay sénégalais lañ duñ ay japonais. duñ ay burkinabé mais ay sénégalais lañ. responsabilité ñooñu bu ñu amee prérogative nekk ci poste de responsabilité selon les profilages. parce que lan on nous demande nos tey jii mun naa jël joxe sama CV sama beneen morom jox ma CV mais profilam gën ma baax moom day dem. Mhm. alors que man maa yoroon pourtant poste de responsabilité ci commissariat boobu parce que je suis le responsable thématique. ay dem oui si selon son selon son profil war na fa mën a nekk. Hmm. oui 40 ans d' expérience dans la politique. c' est déjà bien parce que parce que y' a y' a, y' a mon professeur. de microbiologie. Uh-huh. Euh, euh, doon moo wax ne bu keroog ba ñuy jox suñu suñu suñu diplôme yi. Hmm. fête fin de promotion dafa doon wax ne vous êtes là très diplômé. mais dans le milieu professionnel y' a pas de plus diplômé. y' a que plus expérimenté. tey jii yéen fii nii da ngeen fi fekk ay reporter da ngeen fi fekk ñu nga xam ne. dañoo yàgg ci kër gi ñu jàngal leen lu bëri loo xam ne yow dem nga def théorie bi euh, au niveau au niveau au niveau de votre formation. donc nañu accepter aussi tamit oh, il faut qu'on puisse vraiment def allier. la part des choses l'expérience mm. vraiment et la jeunesse. d'accord. Euh, Pape Sané tey par rapport aux nominations Issa mi ngi soulever inquiétude par rapport au Euh, yenn agence yi wala yenn structures yi moom yaakaaroon na ne structure yooyu amul woon et tout mais tey jii suñu mettre au devant de la scène ces structures là c'est pour nous dire quoi. en tout cas moi au point de vue nomination moi j'ai pas de problème. parce que un parti <laughs> bu accéder au pouvoir. <laughs> il faut mu promouvoir ay nitam man la je n'ai pas de problème par rapport à par contre l'inquiétude de Issa est la mienne euh, dama doon xool juste en passant. ma gis ci au moins deux ou trois agences yi nga xam ne pour man à mon avis euh, seen existence am elle devrait même plus exister. Mm-hmm. benn bi ah bi nga xam non si benn bi nga xam ne moo gën a attiré suma attention c' est celle qui a été confiée à ma ma ma ma ma ma mon ami euh, Fatima Mbengue l' des pupilles de la mm-hmm. nation. mais il y a plus de pupilles de la nation dans ce pays. c'est-à-dire depuis le naufrage de du du du Joola ba ñu instauré cette agence et consort pour essayer de calmer les choses. ñooñu du ñu woon pipi à la nation wala bon. non non. ñii ñii pipi yi majeur nañu. quand je dis voilà voilà majeur nañu. Ah, c'est-à-dire ñun ne mais ñu engagé woon ci combat bi amuñu nga xam ne te dañoo bàyyi ay doom yu ndaw. wa mais déedéet dafa laaj non euh, non on peut venir même sur ça euh, non on peut venir sur ça parce on a vu un peu. Fatima Mbengue nag dafa am dafa am rôle bi mu doon au sein du parti. non non non je sais donc je je ne parle pas de Fatima je parle de l'agence en tant que telle. pour que. non may ma docteur profilage bi laa vous plaît docteur vous allez comprendre c'est-à-dire que tey jii effectivement euh, cette agence pour man je trouve que sa place aurait été une direction ou bien une division euh, dans un service du ministère. de sa famille comprendre nga cest dire pour confirmer li Issa wax c'est-à-dire ñu mënoon wàññi restreindre le nombre d'agences et consorts mm-hmm. euh, Fatima que je connais très bien d'ailleurs xam naa son profil je connais bien mais ouais, je dis que aujourd'hui soo ko defalee benn agence bi nga xam ne peut-être que tu te retrouves avec cinq ou six ou sept pupilles avec un budget bi nga xam ne euh, qui pourrait servir ailleurs mais c'est, c'est pas c'est pas du tout efficace foofu laay waxee je parle pas de la personne de département. je parle de l'agence revenir parce que l'agence xam nga tey ji peut-être que ici ce serait difficile très difficile que bu mun a xam le contenu mais tey ji bu ki ki ko réfléchir ba teg agence boobu mu war a am. wala tey ji yàgg na fi yàgg na voilà donc je sais que je sais ki nga xam ne tey ji jël nañ profilage ba jox ko tey ji bu ñëwoon ñu invité ko mu wax vraiment moom lan mooy objectif am. di nga xam ne ne agence boobu war na amal njëriñ. loolu day mel ni ñu toogoon ci pouvoir bi rek liñ daan wax. daanaka man j'ai l'impression li ngay da ngay laajte sax est-ce que réellement c'est les nit ñi nga doon gis ay temps si ginnaaw ñooy waxaat. mais on verra ah, peut-être qu'il y aura ah, des explications par rapport à non non je suis pas ci coté côté côté euh, kii bi kay ñuy wax direction yi. xam nga souvent bu ñu waxee rationalisation nit ñi dañu jàpp ne dañuy man pour man man hmm. man commissaire à santé bu si nekk nañu wax cahier de charge bi. waaw cahier de charge man man commissaire à santé laa gën a maîtriser. Hmm. mais je sais que. de très tôt très tôt. Hmm. comme un gouvernement. kooku moom c'est sûr. ku nekk da nga ñëwoon am yoroon sa cahier de charge bu la bu président ñëwee toogee en bureau politique. ku nekk li nga war def ci sa commissariat ak li nga war a def da nga koy wax. léegi nag il faut dire que nag ñun de la même manière noonu la ñuy distiller aussi tamit nos hommes dans les différentes agences et, et les et ah, En, tout cas il faudrait qu'on nous explique déjà agence pour les pupilles de la nation. cahier de charge am la ak lan mooy domaine d'action voilà on pourra savoir si euh, la pertinence de son existence. de son maintien déjà. c'est là où on vous attend maintenant. on vous attend vous. pourquoi le maintien pourquoi le maintien de ces postes là. c'est à vous de nous expliquer. pourquoi le maintien nous on ne peut que poser des questions. non mais Sénégalais pour ñu xam ko. loolu yéen yéen a ci taxaw cest à bu fekkee ne moom la awa wax mooy il faut ngeen génne. waaw <laughs> mais la feuille ñu xam lan euh, Fatima tey ji nommé nañ ko dinañ ko gëstu mhm. du moom kese bu Cheikh Omar Diagne am na ñu xaw a jaaxal ci lan mooy réellement rôle am xëy na buñ doon lim dina bari ñi ngi fi woon nag mais nit ñi dañ ko doon xalaat rek loolu moo tax sax ñu laaj la ko parce que du question de ñun ay direction voilà c'est ça je d'accord parce qu'on parle organisation mhm. il faut qu'on rationalise également bu fekkee ne bu ci nekk mën na nekk direction dugg ci benn ministère pourquoi pa mhm. euh, on avance Issa euh, on va sauter le foncier peut-être pour avancer un peu et parler de l'Assemblée nationale parce que gis nañu Assemblée après les élections ba léegi y a combien eu de questions yoo xamante ne déposé nañ ko à l'Assemblée gisuñu Assemblée mu yëngatu torop Guy Marius Sagna tout le temps mi ngi interpeller euh, Ismaïla qu'est-ce qu'il y a non, réellement en <laughs> vacances lan moo xew on est en, on en session. voilà ça mais il faudra savoir que aussi tamit euh, wax dëgg yàlla dañu jóge ci ay élections. sénégalais yi dañoo tànn beneen président bu bees. Mm-hmm. boo xam ne wax dëgg yàlla fu mu toll nii ci li mu toll mooy poser wax les axes prioritaires déjà vous avez premier premier conseil des ministres loolu la wax. Mm-hmm. axes prioritaires yooyu. mais ñooñu bu ci nekk il faut ñu def euh, lu ñuy wax euh, cadrage macroéconomique bi fu nekk ñu dugal leen fa ba xam sur l'année ak yéen xam ngeen léegi budget budget budget budget bi ñu koy tëggee mm. budget programme la léegi fu ne war nañ fa teg wax dëgg yàlla ñun peuple bi comme que moo moo joxe ce signal fort de dire qu'on voulait le changement ah ñun les représentants du peuple war nañ war a mun a may gouvernement bi mu teg les premiers jalons. ba ñu xam ñun exactement au niveau de l' assemblée nationale lan lay indi. c' bien ce que fait le le le l' honorable député Guy Marius Sagna parce que ñun ñii man maa ngi nii léegi léegi laa recevoir collectif euh, des contractuels des établissements de santé publics. Hmm. pour waxtaan ak ñoom ñu wax ma seeni i problématique yëpp. bu ko defee ñun aussi on se prépare pour que defee bu ñuy recevoir les ministres parce que ministre bi war naa euh, premier ministre naa def déclaration de politique mais amuñu contenu kon kooku foog ñu xaar contenu bi. bu defee euh, déclaration de politique générale xam ngeen ne budget bi fekkee wuñ ko fi jël 2024 foog ñu def loi de finances pour que vraiment ñu xam crédit yi ak programme yi nan nañ ko lëkkalee ak le le programme projet. pour que nag vraiment ñu mën a jublu ci liggéey bi nag. loolu moom peuple bi moom moo ñu ko sant ñun ñii ñu may gouvernement bi nga xam ne dañ koy doog a fal parce que ñoom ñoo bëgg. Euh, le président Bassirou Diomaye Faye ñoom ñoo bëgg le le programme euh, le projet teg ko fi. au premier tour parce que c'est un signal fort il faut le mhm. dire. c'est une première au Sénégal c'est une première au Sénégal il faudra maintenant ñun en tant que député représentant ce peuple là. que ñu xaar vraiment ñu am continue pour mën a liggéey. Mhm. moo tax lu ñu mën a def mooy des questions écrites. lu ñu mën a def mooy interpeller yenn ministères yi. des fois sax mun naa wax ne boo leen interpeller itam mun nañu sax bañ a am solution bi léegi léegi. parce que nag. bari na lu ñu war a càmbar ci ginnaaw loo xam ne mu ngi fi. te xamaguñu exactement lan la gis ngeen rapport yaa ngi génn. rapport yooyu wax dëgg naa la ban ban ban ci ci lan lañ koy teg ñi nga ñi nga xam ne dañ leen a épinglé wala ñu tudd leen ci ñooñu euh, il faut que ñu xam exactement euh, fu ñu lañ jëmee suba wala nan la ñu war a comporter ak ñoom yooyu yëpp mu ngi ci man je pense que gouvernement bi war nañ ko mun